dafa génn lu bees tàq ànd ci ak ki nga xam moom mooy Pape Thiopet ñu dem xooli ko eh, te ñëwaat léegi ci plateau Weekend Start ayca c'est parti boy demal. clip bu bees sàq sax laay wax yaakaar naa ni bu ma juumul démb la génn euh, tey ñu invité ko suñu euh, plateau Adam Sène ànd ceeg Papa Ndiaye coppe dégg nga liñ ci balax dégg nga ambiance bi waaye lépp Fat Thiam laa koy may ah Fat Thiam sama député bu ñu euh, bu ñuul bu ñaawul boobu doomu ndar bi maa ngi lay kontaane bu baax sa tàntaa ngi nii toog barkàlla yàlla na sa jàmm yàgg Fat Thiam salaamaaleykum Adam Sène waaleykum salaam <coughs> Abba yaa ngi am jàmm caméra bi la n'est-ce sa caméra ngi invité yi nag yéen tamit ginnaaw seen caméra bu nekkee ni yéen ay invité kii ngeen man bu seen yoon nekk ci man dama fay ne di ruube rek man dama yéen di ruube rek. ayca sa caméra gi nii Adam ça maa ngi leen di nuyu. Euh, di euh, kontaan si invitation bi. di la remercier yow yaa ngi jàpp si combat bi depuis toujours di nuyu sama waa dëkk waa Saint-Louis. ak sama dëkk yaay waa Samba Dia et euh, voilà ñëpp ku ñu ma xàmmee maa ngi leen di nuyu. an sa sa rakk bi. mi ngi fi mi ngi si jaamu astu. dinañ defaat tey beneen vidéo pour yow. <laughs> Adam mu ngi ñu indil titre bi nga xamante ni mooy Fale moom moo ànd ceeg Papa Ndiaye Diopet. clip bi nice macha merci euh, naka la demee nga contacter ki nga xamante ni mooy Pape Diopet ko mu bokk si clip bi. Euh, Pape kenn dootu ko présenter Sénégal. c'est c'est une légende hein, on va dire. dama ko yàgg sentir et tout léegi son bi bi ma ko defee yàgg na depuis 2018 laa def son bi. léegi récemment maam samay grand yu may waxtaanal ma ne dama ko bëgg a defaat puisque j'avais pas eu l'occasion de tourner le clip mm. après ñu ne ma soo si defoon touche taasu dina nice te comme man ay wuyu Pape Thiopet ñoo ma yar mm-hmm. donc euh, j'ai pensé à lui après ma xamante ak ay nit ñu ko xam ñu contacté ko après mu accepté et ça s'est bien passé finalement te Aba gis nga mooy li ma lay wax Naya maa ngi naan ko ndax di nga dem ci mbalax bi mm-hmm. parfois day baax nga apporter benn touche mbalax tamab bu saf sàpp boo xamante ni sa identité la mm-hmm. loolu dafay neex sénégalais yi te day mm-hmm. neex a dégg day neex a fecci euh, macha allah man je t'encourage là-dessus mais ça fait combien de temps nga nekk Adam ci way bi alors man je chante depuis toujours ah mais euh, depuis 2017 la commencé professionnaliser <laughs> euh, maa ko yar ndar moo ko Fatia ñëpp sama sœur maa leen yar moo kii euh, c'est sa nièce <laughs> euh, mais euh, moom bi ñuy nekk xale ñoom dañ doon ñoom Fatia bu ñuy dem école yooyu moom daan wayantu ah. waaw fekkoon na bu ñu amee ay événement yu amoon foofu <laughs> fête scolaire yi pourtant pourtant dëgg wax la moo tax su ma nit kenn waaw dañ mais comme dëggal na ko rek dëgg la dëgg moom xamee woon nañ ma fa fête scolaire yëpp maa doon la commencé way foofu exactement mhm, mhm. ma dem comme ni ma koy waxee chaque fois comme dama bokk famille intellectuelle dañ ma doon tere woy mhm. mais ma dem jàng ba pare dem nekk jàngalekat nekk professeur après ma bàyyi 2017 ma ñëw ma ne damay dugg sama carrière musicale parce que je me suis dit ki am naa fi place en fait voilà acca bi boobu ba tey euh, yaakaar naa ni euh, single yi ñu ngi ñëw benn par benn donc euh, comme tey promotion Fallé moom moo ñu indi mais dañ may gis ngay def choix wu da ngay faral di def ay featuring. Mhm. Euh, lan moo tax. alors pourtant euh, li ma def ay son en solo moo ëpp sax. Mhm. mais euh, featuring je pense collaboration day gën a fructueuse su fekkee da nga am ñi nga xam ne am nañ talent parce que ñi may proposé featuring bëri nañ. mais damay choisir ñi nga xam ne euh, voilà am nañ li ñu may wax am nañ dara am nañ mhm. talent son yi mhm. neex na ma accepté comme li ma def ak Thiello bi ma def ak Mara bu yomb bu yàggul mooy tey du yomb mhm. bii nii man maa dem sollicité ji Pape Pape Thiopet en fait voilà mais da si bokkaale day baax si carrière en fait aca lan nga woy euh, Falema kan ngay waxal Falema c'est un message ou bien c'est juste un son comme ça c'est juste un son comme ça parce que tamit ñu yaakaar ne dama ko dund wala yooyu. mais man parfois mu envoyé la SMS nga bii faale. ma neexee man tam may la euh, Adam faale ma lu mel dafa dafa am en fait da ngay gis euh, jigéen am góor bi nga xam ne keneen bëgg na ko. Mhm. mais jigéen du si xam loolu di di maltraité waa ji. ndaw si toog si rokkam keneen ki ko bëgg. nan ko su ma la amoon damay daw ba dee kii di la toroxal man su ma nekkoon à sa place dinaa la sigil sagal la Euh, le sens de la chanson en fait. donc am na solo mais euh, amoo même bi nga koy way bi nga koy bind ak yooyu yëpp sa xel amul ci kenn ku mu dem. koo xam ne euh, mës na laa ignoré wala yu mel noonu. ah loolu moom am na si ñun comme nañ ma ba taay. yow son bi yow son bi tak tak ak sa digganteeg yàlla. li ñu waxtaanee nii tembe tembe bu fekkee amul foo gu fi ne. son bi yow sa xel ci kum dem yow. ci yow mu teel a leer man ci début bi laa xam ne ci yow la dem <laughs> da ngaa bëgg lu leer rek. dem na ci yow dem na ci Pape Samba. Eh, yow la gën a dem garaawul eh, garaawul mën ngeen émission eh, garaawul la télé moom c'est ça la télé ñi ñuy toog ñëpp a foo parce que duñu wax li nga xam mooy seen <laughs> ku bëgg a gis clip bi ku ko bëgg a seetaan. a seetaan clip bi dangay dem naturellement YouTube nga tapé Adam Sène fit fit Pape Ndiaye Thiopet euh, nga bind faale ma donc euh, voilà maa ngi invité ñëpp ñu dem découvrir ko neex na image yi euh, rafet na te maa ngi félicité aussi Maou Sidibé il fait du très bon ah, travail vraiment ak ñi ma accompagné acteurs yi danseurs yi moo def clip bi oui voilà moo ko te il est professionnel il te met à l'aise mm-hmm. donc tu n'es pas stressé quand tu travailles avec lui kuy mm-hmm. ah, euh, <laughs> ah, dafa dafa yow clip moom faaw professionnel déjà yow da ngay prononcé ala yu prononcé dañoo organisation non bëgg lu baax vraiment maa woo l'heure c'est l'heure après l'heure c'est après l'heure oui c'est ça waaw waaw oui c'est ça non dama bëgg lu baax rek <laughs> te comme euh, si métier bi ma jógee muy jàngalekat c'était organisé bi tamit musique ma dama ko jàppe comme un véritable métier. pour man du amusement sama liggéey la. donc dama siy def lépp lu si wax. man nag euh, ku baax la. Euh, bu toogee fii ba jug te du ma wax moom la kan. Euh, du ma gor parce que dafa tàmm heure boo seqeeg moom lenn rek bëgg na la offrir benn affaire. ci la dëkk je pense que chaque fois daf may wax foo nekk ma bëgg na indil nangam wala sangam donc elle comme ça. yow yaa ko def yow yaa ko waral ku bëgg lu def la kuy yàlla na defal ko jàmm yàlla bàyyi la nga continuer ak sa bopp nga bëgg a sant ñëpp bu beneen yoon te su ma la envoyé SMS waaye sam yàlla na sa jàmm yàgg waaye déggal li déggal li eh, kii eh, Ahmed Fall Brooklyn Shop maa ngi lay kontaane li nga ma jox yombul tarkalla Ahmed Fall yàlla na sa jàmm yàgg sama waaj moo ma sañseel Brooklyn Shop doom yaayu Lamine doom yaayu Dame Fall doom yaayu Bak eh, kii ñoom ñoom ñëpp daal ñoom daam cadd cadd ñoom bëkkëri nga ni ko lan pour beneen yoonate ma ne faale ko. su ma ko message mu. mu faale la day am solo dama koy. faale à chaque fois non te tamit damay damay séddale su moom saa yu ko bindee message dalay honnêtement soo ko woowee soo ko jotul sax dalay rappelé xaaju guddi sax dala koy. allah nit ku baax la nit ku oyof la. <laughs> nit ku simple la ku sympa. macha ku neex a bëgg la. allah li ma jaaxal mooy lan moo tax nit ñi mënuñu bëgg rek ku neex a bëgg la. <laughs> ku bëgg a euh, abul a maa ngi remercier ñëpp di sant encore une fois sama waa dëkk waa Saint-Louis waa Njulufeen sama koñ mm. waa Gendar man waa Gendar laa maa ngi mbokk Alaaji Maaw di leen ziar ñoom ñëpp ak moom <laughs> <laughs> si man de ku ma gis ak sama kanamu xaar bi nga yaakaar dama yaru xeex rek laay def <laughs> donc di nuyuwaale aussi waa Samba Dia waa Joal ak ñi may jàppale style naa Jaara Diop sama maquilleuse Adam Diouf borom Kuros Beauty and Spa ak ñëpp ñi xam ne daal exactement il ah, s'appelle Adam comme moi <laughs> ak ñi siy jàpp te bëgguñu ñu wax seen tur dañ siy jàpp ngir yàlla tax parce que loolu de nos jours c'est rare mhm. parce que ñëpp xam ne milieu bi mel nga nekk jigéen parfois il est difficile nga gis nga xam dañ lay jàppale gratuitement mais am na ñu nga xam ne ñoo ngi euh, dans l'ombre di si jàpp te bëgguñu sax ma tudd seen tur mhm. donc a ngi may dégg maa ngi leen de moom li ma jàppale yëpp du te yàlla tax moom jàppale moom te yàlla tax non eh loolu lay def de man moom jàppale ma la dama koy offrir day mais lépp lu ma ko bëgg a jox day bañ day bañ nit ñi baax la moom tamit yàlla na sa jàmm yàgg yi donc euh, ñu woo beneen invité bi nga xam ne moom la ñu am waa euh, ñu dem mm-hmm. xooli ki nga xam ni mooy Feno BV rek nee na bébé naa bee ñu dem xooli clip bi rek Feno BV bébé naa bee Adam Aïté ci kanam